Sunu People TV, la chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information en temps réel. Suivez l'actualité politique, musique, buzz, sport, société. Abonnez-vous sur YouTube afin d'être les premiers à regarder les toutes dernières vidéos. Contact 77 732 92 37. Sunu People TV, l'actualité en temps réel. L'actualité en temps réel.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 ñoo xamante ne ni mun nañ ko jiitee jiite bu préféré ñu daal di veillé ci njàngu xale yi rek nga xam ne bu ñu màggee ñoom dinañ mën a daal di yor réew mi ba nga xamante ne dina permettre société yi daal di gën a bari rek ba xale yi ñu mën a dem ci gaal yi rek di yàq seen xaalis ak di fa dee rek di dem ci naan dañuy dem Espagne wala ñuy dem Europe kon veillé leen ci njàngu xale yi nee naa la xale buy jàng da nga koy surveiller di ko xool mu ba a yor téléphone parce que téléphone léegi la xale yi di foowee dugg ci internet bi ak di connecté wu di gis ay réalité loo xamante ne nii ci euh, ci YouTube bi du réalité mais loo xamante ne nii du daf leen di yàqal seen jàng kon nee naa leen veillé leen ci njàngu xale yi bu ko defee rek xale yi daal di jàng rek ndax bu ñu màggee rek bu ñu demee ba màgg rek daal di mën a yore réew mi ëllëg ndax fi mu nekk nii amaguñu njiit yoo xamante ne nii mën nañu jiite def ay société ba nga xamante ne nii rek liggéey bi euh, dëkk bi day am liggéey ba nga xam ne rek du permettre xale yi rek ñuy daal di jël gaar rek di dem di tukki ji ak yooyu kon fayee leen ci njàngu xale yi tey sama vidéo ci loolu la waa wax xala bi so much